asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo moom di ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar di leen balaax di leen ko balaax di am mbégte nag di jàkkaarloo waat ak yéen ci beneen jataay boo xamante ne bii jataay bokk na ci jataay euh, daayira bi ñu tuddee Xudaamul Xadim te njiit la di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad mu feggoo ko ak ay kilifa ak lenn ci bokk yi. ak lenn ci taalibe yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi nekk bitim réew ñuy def nag saa yu euh, xew-xew amee euh, danañ ci toog waxtaan ci buñ ci waxtaanee bu fekkee ne laaj na yëkkati kaddu sëriñ bi dana yëkkati kaddoom bu fekkee ne laaj na it muy loo xam ne dañ ko war a dox sëriñ bi dana joxe ndigal ñu jóg dox ca loola waaye nag bu am lu fi xew loo xamante ne bii barki démb la xew donte ci dëkk bi la xewee te muy lu jëm ci wàllu loo xamante ne bii Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tere woon na ko fi tere ga it ñor gum ko ñor taxoon doomi sëñ Tuubaa yim fi nekk loolu yëpp kenn ku ci nekk mu bind loola ci këyit woowu sab nga signé ko ca loolu nag bokk na ci li nga xam ne moom la Xudaamul Xadim di sàmm euh, ba fan yii xam ngeen ne ginnaaw màggalu Cheikh Abdoul Ahad euh, dégg ngeen xew-xew bu fi am boo xamante ne bii xëy na ci lenn ci kër yi la amee waaye ñëpp di ci yëkkati seen kàddu comme ni ko seriñ bi defee woon jamono ji nga xam ne am na ku yëg fa boon tànkam teg ko ci kaamilub